alsheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin la hawla wala quwata illa billahi aliyil azim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli barke borom Tuubaa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki téléspectateurs yi noo ngi amaat mbégte di ñëwaat ak yéen ci jataay bi ñu tuddee xawlal madahibil arba te ngeen di ko ànd ak seen mbokk docteur Abdoul Ahad Sané euh, fii ci tuuba ci daara ji nga xam ne moom la ko Cheikh Mouhamadul Mountakha jox mu di fi jàngale mbokk ñi lay jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci émission yu weesu tey rafetlu kàddu yi tey gërëm ci ñaan yi nii ñaan jëme ko ci jataay bi yàlla nañ ci dëppoo ak eh, tawféexi borom bi subhanahu wa taala eh, ñu jaajëfal sëñ Abdou Lahad ci tomb bi nga xam ne andi woon na ko ci émission bi weesu te muy li nga xam ne moo sabab wuute yi nga xam ne am na ci ngir yi donte jataay bi desaat na ngir ñu gën koo mën a leeral dama koy bàyyi rek mu nuyoo ak bokki téléspectateurs yi su noppee nag sëñ Abdou Lahad dafa mel ne wuute yi tàmbali woon nga cee dugg waaye yaakaar naa ne war naa mën a gën a xóot ci yi nga xam ne dañ cee wuute ak yi nga xam ne dëppoo nañ ci ak sabab yow waral euh, wuute yooya kenn ku ci nekk saw giseen ba tax wuute ya mën caa am mm, loolu daal yaakaar naa ne war naa gën a mën a leeraat ci bopp ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy déglu te di ñu seetaan. alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi am mbégte dajawaat ak ci sunu jataay yi xawla al arbaa doon jataay yoo xam ni lañu cay jàngat mooy ñeenti ngir yi nga xam ni ñooy ngiri fiqh yi ci lislaam ak ngir yi nga xam ni ngir yu raaf lañu Eh, ñan ñooy ñi sos ngir yooya ak ñuy seeni taalibeeg ak seeni taalif ak it seen ngir ci yan xawaayit la tegu jataay yi weesu taxawoon nañu ci xamle luy almadhab dellu yit tënk aslëf ci turu ngir yi nga xam ni ak borom ngir yi nga xam ni ñoo fi ne tey ak ñi nga xam ni seeni ngir dafa mu jaraaf dellu ci ñetteelu jataay ba ñu tënkoon ci wuute gi am ci diggante ngir yooya ci ay masailu fiqh yu bari analan moo waraloon wuute yooya e, ñu tënkoon ci tuuti waxtu yi dab ñu ñu bëggoon a yeggali ci tomb boobu comme ni ko sëriñ Fallou Galas si la waxe Eh, ñu delluwaat rek ci xam le ni eh, yàlla subhanahu wa taala ba mu yónnee yonent bi da koo joxub téere téere boobu alquran la tudd alquran booba mu ko jox amut sikki sàkka mooy téere bi gën a rëy ci téere bu mas a gane si kaw suuf eh, leeral na ca lépp tibyaanan li kulli shay comme ni mu ko waxe ak maa faratna fil kitaabi min shay téere bi bàyyiwuma ci dara ci ñi nga xam ne dañ ne alkitaab du lawxul mahfuuf waaye alxuraan la ca jublu eh, alxuraan ba ko sunu boroom jo wàccee ci yonent bi dafa am yu alxuraan làmboo am wàll woo xam ni ci alxuraan wàllu pas-pas lay jàngale am weneen wàll woo xam ni fiq lay jàngale mooy diggante jaam bi ak boromam ci ni mu koy jaamoo mm-hmm. ak diggante jaam bi ak jaam ni moom ak yamu bokkal àddina bi mm-hmm. am ci wàll woo xam ni it wàllu xisas lay jàngale mm-hmm. jaar-jaari yonent yi jiitu woon yonent bi sallallahu alayhi wa ak nitu yàlla yi jiitu woon ak saay-saay ya jiitu woon ak buur ya jiitu woon uh, nu ñu seeni mbir ne nekke woon ak it Eh, fu yàlla mujjee ak ñoom eh, alxuraan kon ñett yi ñoo ci ne waaye fuqahaa yi nga xam ne ay aymatul arbaa ak seeni ñoñ nga xam ni moom lañ ñoom la ñu jagleel émission yi ñoom ñooy ñi nga xam ni dañoo màccoon ci fésal seenu màcc it ci wàllu fiq te fiq kon mooy al ahkaam al sharciya yi nga xam ni sursam bu njëkk mooy alquran mm-hmm. yàlla ba mu joxee yonent bi alxuraan wàcce ko ci moom eh, da ko def mu doon téere boo xam ni moo la dafa lottal ñëpp ba kenn mënta bind lu ne mel mm-hmm. lott gi mu lottal nag ci anam yu bari la waaye anam gi ñu ci gën a ñor fii mooy nii téere la bu mën a ànd ak àdduna bi ba keroog àdduna bi di tukki téere la bu dul ràpp te du raaf te du sàppe mooy alquran Euh, te nag ku xool wàllu nite walla wàllu wax danga xam ni wax ju tënku moo gën a jotale wax ju ñu jo ju ñu ju ñu teqale mm-hmm. wax tënk moo gën a mën a jotale moo gën a mën a yaatu wax joo xam ni danga nga koo tafsil euh, bu ñu ci doon joxe misaal dañuy joxe misaal rek ci ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla wàccee ci moom xaraamuk sàngara fekkoon na euh, matière yañ daan defare sàngara jamono yooya ca Madina bari lool mm-hmm. donte ga ca gënoon siiw bu la arab waxaan sàngara sàngalay sàngaray raisin la ci daan jublu mm-hmm. moo ca gënoon a siiw euh, donte amoon nañu daan jël yenn xeeti dugub yi di ko defare sàngara mm-hmm. am ñu daan jël euh, tàndarma di ko defare sàngara façon yi sàngara bari woon na ba xaraamuk sàngara wàcce eh, ku ne ñëw ci yonent bi ne ko man day sàngara sàngam laa daan laa daan liggéey yonent bi ne ko xaraam na keneen ñëw ne ko man day ci nàngam laa daan liggéey yëpp sama sàngara mu ne ko xaram na ba façon yi baree ya ñuy ñëw di ko gaaral yonent bi yonent bi daf leen tontu tontu lu gàtt mm-hmm. mooy kullu muskirin xamrun wa kullu xamrin xaraamun lépp loo xam ne dafay màndile koy jëfandikoo jublu ca màndee loola sàngara la te sàngara bu ca ne dafa xaram gis nga tënk googu dafa gën a jotale doon bu doon dañ ko indil junni façon ca jamono yooya bu ca ne mu ne dafa xaraam dëgg tënk gee gën a jotale loola dëgg li tax mooy ni jamono yooya lañu xamoon ci sàngara mooy sàngara yu ñuy naan yooya lañu xamoon ci luy màndile bu continuer woon ci tafsil googa tey lu mel ni cocaïne xew duut lu ñuy naan waaye dañ koy pikiiroo ko saraxndikoo bu boobaa dañuy soxla weneen lay pour layal ko ba xam xaraam na wala xaraam dëgg la yàmbaa xew ah, bu boobaa it du ñu mën a du mën a dugg ca yooya ndax sàngara léegi am na yu ñuy saraxndikoo am na yu ñuy pikiiroo am na yu ñuy fóon am na ay façon yu bari kon tënkam googu ci kullu muskirin xamrun dafa matale ba façon yi sàngara wu mën a xew ci àdduna ba keroog àdduna di tukki bu fekkee ne ellay màndil gaa nga fa ñu koy jëfandikoo ngir màndee ca bu boobaa eh, du ca mën a dugg eh, ci misaal boo déggee ma ne dañ koy jëf ñu lu ñuy jëfandikoo ngir màndee ca ngir lu mel ni lem génn ca ndax lem boo ca naanee lu ëpp mën ngaa màndi waaye nag alxasdu ci jëfandikoo lem asaasan jubluwaay wa doonut ngir màndee ca dëgg la waaw ngay naan muy neex rek di naan muy neex ba far naan ca lu ëpp man mm-hmm. na laa mën na laa màndil mm-hmm. googa moom fekk jubluwoo ko jubluwoo ko ca mm-hmm. eh, loola la jublu ci eh, lu ñuy naan lu ñuy jëfandikoo te jublu ji ca màndee eh, kon li tax ñu indi loolu mooy pour wane ni tënk dafay gën a jotale tafsil teqale alxuraan nag ba mu ñëwee la ci ëpp da koo tënk lépp daanaka da ko tënk néew na ci alxuraan yàlla di ca teqale ay atte teqale goo xam ni day mat sëkk bu amee lu jege teqale gu mat sëkk ci alxuraan ayatul miiraas kese la wàllu miiraas rek la sunu borom tafsiilal boppam dëgg la sax am na borom xam-xam yoo xam ne jàpp nañu ni euh, sévère gi miiraas sévère moo tax sunu borom teqaleel ko boppam boo demee ca téere booba zawraqul xaayit di di di firi ahmad bun njaat njaay eh, mi ngi mi ngi mi ngi cay wax eh, na ne ne alhamdulillahi alladi tawalla qisma alfaraidi ala wa jalla bi nafsihi wala yakil qisman ala muqarrabin wala ala man ursila mi ngi sant yàlla nee na moom mi nga xam ni moo gàddul boppam séddaleel boppam miiraas mm-hmm. sant ko sant ko malaaka loolu ci gàttal Euh, alquran miiras rek la teqale mhm. julli la muy foor foor teqale wuñu ko mhm. daf ñu digal julli mhm. tëkkuñu ci bañ julli digle na julli soññee ca ñaaxe ca ba pare tëkku ñi nga xam ni dañuy woyofal julli euh, kon loola euh, la ca des mu wax yonent bi ne leeral ko yonent bi ñëw leeral nan lañuy ñuy jullee jëfin ji ci boppam waxtu ya ñuy julli Eh, ponk ya ca julli farata yaak sunna ya lépp yonent bi moo ko leeral li mi julli moo ko leeral loolu kon benn muqaddima la bu ñuy wane ni alquran ba mu wàccee suñu borom da ko tënk lépp daf ko tënk daanaka azaka woor ak yépp rek da koo tënk yonent bi la digal ne ko teqalil ma li ma tënkoon wa anzalna ilayka dikra li tubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim dama wàcce ci yow alquran ngir nga leeralal nit ñi eh, lii nga xam ne wàccee nañ ko ci ñoom kon loolu moo doonoon dawru yonent bi rôlu yonent bi comme ni ñu ko waxee woon keroog mm-hmm. euh, kon yonent bi ay waxam lépp rek pirim alquran la mm-hmm. ay jëfam jëpp pirim alquran la mm-hmm. lu mu fekkee sax na mu réagir ca loolu mu fekkee pirim alquran la yonent bi kon la euh, léegi ci kaw loolu saxaaba yi dañu nekkoon ak yonent bi doon ñaari saxaaba ñenn ñi ñooy ñi mu àndal gàddaay ñëw ma diina jóge Màkka ñëw ma dem Madina ak ñu jóge ci yeneeni réew ñëw gàddaay si fekk si ko Madina ñaareel bi mooy seeni njaatige ya ñu fekk Madina te loolu daal ñu tuddaal na wal ansaar ña way gàddaay ña ak ña leen dalal seeni njaatige ñoom ñooña ñëpp nag dañoo amoon yi métier ñii amoon i tool ñii doonoon i jaaykat ñii dañ daan nekk seeni kër kon ñoom ñëpp daawuñu teewandoo fa yonent bi saasu su ne mhm. daawuñu teewandoo saasu ne mhm. tey da nga su ba nga absenté man nga absenté ay fan te bu fekkee ni yonent bi lu mu wax xadis la lu mu def xadis la lu mu fekkee xadis la te xadis ay firi alquran kon laa shakka dana am lu bari ku nekk dana am lu bari lu la lu la faat ca la yonent bi daan jàngale macha allah ku nekk danga am lu la faat ci la yonent bi daan jàngale ku nekk nag la nga fekke nga daa jottali mhm. say taalibe moom la ñu jëlee ci yow ñeneen jële leneen ci si eh, seeni sëriñ ñooñu jëlee ci yonent bi wax ja noonu la jaare di tasaaroo di tasaaroo ba ku nekk di jëfe lu tolloog la nga xam kon wuute bi bu aimma yi wuute bokk na ca am ñoo xam ni dafa am xadis bu leen jote te jotewul ka ca des am koo xam ne xadis bi jotane leen te bi ñu màndaxee xadis bi am nañu sikki sàkk ba xam wér na wala wérul tax ñu ñàkk koo jëfe kële jàpp ni wér na mu jëfe ko am na ci ñoo xam ne xadis bii daa leer nañ ñi wér na waaye dañoo gis beneen xadis boo xam ni moo gën a wér bii ndax yonent bi diine ji dafa yaatu woon mm-hmm. ku ci nekk daan na la tontoo yenn saa yi nu tolloog sa xaajo yow lu tollook sa xel nu tollook sa xaajo kon noona yonent bi daan jàngalee ku ci nekk jël ci moom la nga fekkee jottali ko ña fekkewul ña fekkewul jottali ko mu rogalaat yegg ba ci ay may te ay may aussi bokkuñu woon fi ñu dëkk Malik waa Madina la Shafii dundam lii ci Iraq la wante Makka la cosaanoo eh, la ca des doon Misra eh, nga dem ci eh, Abu Hanifa waa Iraq la Ahmad ibnu Hanbal waa Baghdad la ci Iraq moom it noonu la tasaaroo woon ku ci fu nekk nag ci gox yii dafa am ay saxaaba yu fa dëkkoon dafa am ay saxaaba yu fa nekkoon lañu leen jàngal mooy lañu déggee ci yonent bi te yonent bi daan na wax ñaari wax comme ci misaal nit ñëw na ci moom ne ko laaj ko muy diggante busrata ak talqub nu saad kii laaj ko ndax am góor bu laalee sakkaraam ndax njàppam yàqu na mu ne ko ndax sakkaraam du cër kese ci moom kooku yóbbu loolu mm-hmm. keneen ñëw ci geneen jamono laaj ko même laaj bi mu ne ko man massa dakarahu fal yatawadda ku laal sàkkaraam na jàpp xam nga ñaar yooyu du benn wute am ndax bii dafa man suuxal bële mhm. wala lu xew ku ci nekk daal la nga dégg nga yóbbu ba nga demee moom nga jàngale macha allah loola dafa rogalaat ñëw ba ci ay may ku ci nekk lu tollook la nga jàngee ci say sëriñ moom nga jàngale moom nga jëfe moom nga saxal ci say téere loola bokk na ci wute yi wuute yi dana ko waral dégg ñàkk euh, wuute ci dégg-dégg euh, waxoon nañ fi junjoon nañ ko fi keroog Anas ibnu Malik nee na julli na ci ginnaaw yonent bi ak Aboubacar ak Omar waaye daawuñu jàng euh, seen julli ñu ngi ko daa ubbee alhamdulilahi rabbil alamin imaam Ahmad ibnu imaam Malik dégg ci ne kon alhamdulilah bismillahi rahmaani rahim doo ko jàng ci booy julli imaam Ahmad ibnu Hanbal ne doo ko biral ci booy julli imaam Shafii ne la mu ca jublu mooy saar wi la daa tàmbalee saaru alhamdulillahi rabbil alamin la daan tàmbalee te bismillahi rahmaani rahim ca la bokk ñoom ñëpp benn xadis bi la ñu tegtal mm-hmm. ku ci nekk wax la nga wax kon wuute yi doowut woon wuute jaayante xam-xam woon wuutey bëgg a wuute mm-hmm. doonut woon wanante ku ne di wane sa wane wane sa bopp mm-hmm. waaye wuutey ku nekk na nga déggee wuutey ku nekk la nga jot ci xam-xam loolu moo waraloon wuute yooyu macha allah bari na mm-hmm. waaye comme jataay yi jataay yi ñu tënk la mm. kon euh, ci gàttal lii moo nekkoon wuute yi amoon ci diggante ay may ak yi ñoo ko waraloon kon ñu leen di dox euh, ñu leen di jox dig daje ba ci suñu beneen jataay ci seen émission wub xawla al aimati al arbaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf euh, Cheikh Abdoul jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ñuy topp te di ñu seetaan yaakaar naa ne jataay bee weesu bii ñu nekk gën na koo mën a gën a leeral ci wuute yi nga xam ne day am ci diggante eh, ñi nga xamante ni bii ñoo di saxaaba yi ndax day mel ne kenn ku ci nekk ginnaaw alquran dafay tënk ca mooy farata hadis yonent bi sallallahu alayhi wa dafay firi kon day mel ne kenn ku ci nekk eh, fa nga tolloog yonent bi ba nga agsee lam wax ak yow loolu ngay jàpp ne mooy wér te kenn ku ci nekk day amaat lu wér te mel na ñoom ñëpp seen i delluwaay day doon lu wér doonte déggin yi suñu borom dana dana ko dana wuute ci kamtulaay nañ déggee mooy ña xam ña fekke ak ña fekkiwut bu fekkente ne bi aaya bi muy bi muy wàcc diw fekke na ko bi ko yonent bi firi diw fekke na ko ke fekke na wàccuk aaya ba waaye fekkiwut firi nu aaya yooyu yëpp mën naa jur ay dégg ay wuutey déggin yoo xamante ne bii eh, waaye nag wërta jur ak ko mën nañoo jur ak wuute waaye mënuñoo jur nag ak ko ndagam ñëpp ci alquran ak sunna la ñuy delluwaat kon ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci tomb boobu ak leeral gi nga ko indi di joxaat euh, rendez-vous euh, auditeurs yi ak téléspectateurs yi ci suñu beneen numéro incha allahu rabbi boobu nag ñu jagleel ko spécial euh, imaam ji nga xam ne moo di imaam Malik buñ ci dellusiwaatee incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.